bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabilalamin wa asrafu alsalati wa atamu taslimi ala nabiyina muhammadin almakin wa ala alihi altahirin altayibin ajmain wa radi allahu an alsahaba wa an altabiina wa man ihtada bihadihim ila yawm ddin bismillah subhanaka la ilma lana illa ma allamtana innaka anta alalimu alhakim wajcal kalaami rashidan wa murshida wa fikrati nawwir wa qalbi arshida bismillah nu dellu siwaat ci kartanul sunu borom subhaanahu wa taala njéema tontu laaji fi jotorot ci yoon al imaamu malikin rahimahullahu taala ak waxi borom xam-xam yi ñuy sukkandikoo seeni wax mu dee laaj bu njëkk bi mbokk mi laaj julli ci loo xam ne dafa kawe neen daa gis mel ne yenn jàngkat yi wala yenn kuréelkat yi yal na leen yàlla dolli ak wér bu ñuy jàng dafa am lu ñu leen defal ab podium lu mel ne ab podium la léegi nag bu jàngee ba julli suba jot ñoom bu ñuy julli ca kaw loolee la ñuy julli tontu li mooy waaw waaw loolu day wuñ ko ca julli te nekkul ne dañuy tere lépp lu kawee rek ñu ne la ñuy tere ko ca julli bu loolu dee julli ci lu mel ni ab étage tam na jàkka yoo xam ne étage la. imaam bi moom na nekk ca suuf dañuy tere imam muy gën a kawe ma'mum xanaa bu fekkee ne du ngant ah, bu fekkee daal ngant moo ko waral tey rëy rëy lu waralu ko incha allah su boobaa loola ayut waaye la ñu taamu daal te ne ko mooy imam moom na nekk ca suuf maamum ya nag mën nañoo nekk ca kaw mën nañoo nekk ci kaw ay étage yi étage yi étage boo demee màkkatal mukarrama imaam bi buy jiite ci kaaba gi lay taxaw te am na ay étage xam nga léegi dañ ko étage nit ñi dañuy yéeg ci kaw nga xam ne mën ngaa tiim sax sa imaam incha allah kon nag bu fekkee daa am lu ñu def lu mel ne xeetu pëjam ñoom ñu nekk ci kaw julli jot ñu jullee fa incha allah loola ayut rawatina bu fekkee ne dafa xat nit ña ndi di buuxanteeg yu mel noona wallahu taala alamu sawaaba laaj bi ci tegee mbokk mi laaj ne li xew ci jamono ji léegi nga xam ne góor goo gis rek faaw mu am gone gu jigéen gu muy nekkaat gu muy nekkal gone gu jigéen goo gisit lu ci ëpp rek faaw day am gone gu góor gu muy nekkal mu mel na daal dafa xew muy laaj xeetu labatin yooyu déedéet loolu moom tuddul labat loolu moom du labat labat moom mooy góor gu paree takk soxna ak jigéen ju paree dem kër ñuy waxtaan incha allahu rabbi di xool naka la ñuy lijjantee waxtaan ak mbokk yi loolu la ñu tudd labat amaa bu dee loolu xew nag loolu moom yàqu-yàqu jamono la ak topp bakkan incha allah ak di roy tubaab bi tubaab bi ñoom ñoo ñoom ñoom lañ xamoon loola maanaam koo gis rek ñoo ne diw mooy sama copine wala mooy sama fiancé nga xam ne sañ ngaa dem këram fa nga dañ koy nga xam doo ko nëbbu diw mooy sama financé fiancé diw mooy sama petit ami euh, wala sama sama boyfriend ci anglais yi nga xam ne kaw gis daal jigéen daal day am far góor nga xam ne tax jigéen ji mën naa am bu amul far sax day nekk luñ koy ñaawale loola yàqu-yàqu jamono ak topp gi topp culture euh, tubaab bi loola moo ñu fa yóbbu loolu moo ñu fa yóbbu waaye loolu du lu baax du jikkay ab jullit te it lu lu xaraama xaraama xaram la te it du yar bu baax kon daal yàqu-yàqu jamono moo àgg foofu ak léegi négliger mooy yàlla nga xam ne mooy yàlla léegi da koy oyofal ba nga xam ne du dara ci film yi nga koy seetaan man dañuy am kii mooy sama copain mooy sama nangam ngeen sañ a ànd nga ne doo ko nëbbu sax loola ci tubaab yi xam nga tubaab bu njëkk dañ doon. dañoo ñëw indi seen i ngànnaay ne ñu da ngeen bàyyi lislaam far force waaye booba nag nit ñi dañoo lànk ne ko duñ bàyyi lislaam ginnaaw bi tubaab yi dafa teg ngànnaay yooyu jël beneen ngànnaay li ñuy tudde alxarbu an naaima mooy léegi guerre bi idéo ci idéologie lay doon ci xel dañuy dox sa xel dañuy fexe ba may la sa jàmm may la sa sala waaye dugalal la nag ay tele dugalal la internet dugalal la yu bari di la won di la rafetloo yoo xam ne soo dee ko seetaan daal di jàpp lii kon war naa ko mën a def su ko defee nag suñu jeunesse bi dañuy copier loola di doxee noona ci wàllu dëkkuwaay léegi gis nga dañuy beru bu ñuy dëkk dañuy beru léegi duñ mën a waxtaan ku nekk da nga yor sa téléphone nekk ci ab ruq rek di kaj kaji léegi waxtaan dootul am déggoo dootul am famille buy toog di lekkandoo am na ñu bari ñoo xam ne léegi bàyyi nañ ko ku nekk da ngay tibb sa palaatu bopp dem beru sab ruq nga ne léegi lu bare bari ci yi ñu lislaam jàngaloon mu nekk culture islamique bàyyi nañ ko kon nag ñàkk tënku ci lislaam ak di xool lam ñu lam ñu jàngal moo ñu yóbbee loolu waaye loolu tuddut labat loolu ay caaxaan ñaari ñu ànd di caaxaan rek lay doon wallahu aalamu bu dee laaj bi ci tegee mbokk mi laaj ndax jigéen dagan na mu génn ci lu dul ndigalul borom këram am na ay xadis yoo xam ne dañoo tëkku jigéen ne xaram na ci moom muy génn te tëgguwul borom këram bu ne génn nag mooy génn bu am solo waxuñ rek génn nii waaye génn bu am solo génn jekk-jekk dem fenn wala mu def tukki bu ndaw wala mu jóge ci quartier bi dem ci beneen quartier wala yu mel noonu wala mu ne damay dem xew ca xew nangam ba amaa génn nii ci koñ bi rek dem ci dugg ci ak kër abbu kudd cumwaar wala abbu nàngam wala wuti këriñ wala dem ci bitig ba jëndi loolu taxul ñuy wax am na ay xadis yu ci rot di wax na jigéen bu génnee génn boobu ñu wax te tëggul borom këram mi ngi dox ci ak ma yàlla te malaaka yi dañ koy rëbb ba keroog mooy dellu si borom xam-xam yi nag am na ñu bari dàq nañ xadis boobu nee nañu wérut nee nañ du xadis bu wér dañ na daal jigéen bu fekkee day génn li ñuy xool mooy ndax génn ba farata la te du ca lor borom këram bu fekkee génn ba farata lay dox taxawaale te soloo na nam war a solo dem doxi ay faratam ñëwaat su ñu ne am na ca droit kon heure boo xamee ne daal ni nga xamee ne bi muy génn dem ci bitig bi farata la te borom kër bi xam ne farata la te day dox aajo doo dem àgg ne jaay ma crédit dëppaat te muur na na mu a muuroo taxawaalu ci àll bi amul dara lu mu fo daal nee ñu kon su boobaa génn ba daal du aay ala kulli xaal hadis boobu am na ñu bari ñu ko ñu ko jam ne jigéen nag du esclave du dara koo xam nag day tëju rek wala nangam bu fekkee ne li ñuy bañ kay mooy tambaambalu alxuraan dane wala tabarrajna mu tekki tabarru tabarrujal jaahiliyatil ula tabarrujal jaahiliyatil ula bu leen di tambaambalu ni ko ceddo ya daan defee waaye amaa bu fekkee nit ku taxawaalu day faj aajo ju ñor am na comportement bi mu war a am su ñu ne ayut mu génn wallahu taala alamu sawaaba yàlla xam la ci wér laaj bi ci tege mbokk mi laaj am mason la da doon liggéey xoolu téléphone am ci bisu ajuma moom daal amut lu dul jekki-jekki rek yëg ne ajuma ji weesu na nga xam ne bis boobu julliwul ajuma muy laaj nag ndax xaalis bam ca amee du nekk xaalis bu xaraam ak ndax du ca am bakkaar waaw bu fekkee ne ak ñàkk xam rek la akuk fàtte suñu boroom jéggal na xeetu yoonante bi sallallahu alayhi lépp loo xam ne fàtte moo leen ca yóbbu su boobaa nag kon doo ca amee benn bàkkaar du tee nag war ngaa tuub ngir faatu googee nga ko faat ndax lépp loo xam ne suñ borom dala koo sant te defoo ko ak doonte tëyoo ko na tuubal sa borom rek waaye nag ci àttey lislaam moom kooko du ci am benn bàkkaar comme daal fàttee la ak ñàkk xam su boobaa bàkkaar amu ca lañ ko fay ca liggéey bi tamit dagar na ko incha allahu rabbi bu fekkee noonu rek noonu moo ko waxee rek la deme ak fàtte ak ñàkk xam wallahu a'lam laaj bi ci tege mbokk mi laaj dafa leboon benn borom bitig euh, marchandise gannaaw ba borom bitik ba tukki xamaloon na ko sax ne ko damay tukki waaye mu ne ko xëy na bala ngaa dem ma fay la mu ne nag te xamul borom bitig ba fu mu nekk waaw moom de comme alal la man nga koo téelu yàgg rek man ngaa bàyyi xel wala nga bind ko daal xamal ne moodu Diop bitik mi fi nekkoon ameel naa ko juróom benn fukk su ko defee nag yàlla baax na ngay gëstu xëy na boo gëstoo bu yàggee du ñàkk nga am ci moom xibaar bu yàlla dogalee gëstu ba yàgg lool nga def ba ñàkk yaakaar nag da ngay jël alal jooju nga saraxe ko yene ko yool ba wallahu aalam bisimilah bu dee laaj bi ci tege mbokk mi laaj dafa dem ci ajjuma ja di julli ji ba imam di xutba mu doo ko fàttaliku ne tey julliwul suba nu muy def xanaa daal di jóg ci saasa rek liqaam te daal di julli suba incha allahu rabbi laaj bi tegee mbokk mi laaj ne jigéen bu fekkee dañ koo fase wala mu ñaan baat wàllu bagaas ya ndax da koy yóbbaale wala du ko yóbbaale loolu tontu nañ ko ay yoon yoon bagaas yamu moom lay yóbbaale yamu moomut ñu bàyyi mu bàyyi ko fa loolu nag dañ ko daa ñaan baat dañ koo fase amut amu ci différence jigéen daal buñ ko fase bépp bagage boo xam ne moo ko moomoon borom kër gi moo ko jëndaloon may ko ko wala mu jox ko ko wala mu waajale ko ngir mu sëy si bagage yooyu yëpp buy dem da koy yóbbu moo xam nag daa ñaan bat wala dañ ko may baat loolu amu ci naka noonu bu fekkee ne dañ koo fase nga ne dañ koo may baatit lam moom dong la sañu yóbbu lépp lu mu moomut nga ne du moom lañ ko joxoon du moom lañ ko jëndoon loola fase gañ ko fase ñàkk ñàkk ñaan baat du tax mu sañ ko yóbbu kon daal kenn ku nekk la moom rek nga yooyu mbiri aada la rek naan buñ ko fasee mooy yóbbu lépp bu fekkee daa ñaan baat du yóbbu dara loolu du waxi lislaam loolu jubut loolu du ak maandu nit ki lim moom moo ko moom sëy fase du dara nekku ne ki ki ñaan baat daa bon nekku ne ki maye baat daa bon dañoo dem ba mënta dem suñ borom ne bu ngeen demee ba mënu leen a dem ba mbir mi mënta rafeti na ngeen tàqali ko kon nag ajuwul ci bagage yi ku ko moom ak déedéet kenn ku nekk la nga moomoon rek yaa ko moom ba léegi jigéen ñi buy dem na yóbbaale ay boolam bu dee armoire bi moom lañ ko jëndul na ko yóbbaale bu dee lal bi moo taxoon na ko yóbbaale bu dee téléphone bu ko jëndoon waa ji a mer ne ko comme yaa bu ko defee rek jël na alali jàmboor kenn ku nekk la nga moom ngay jël kiñ fase fase giñ ko fase taxut nag mu jël alal jëkkër yëpp buub ko yóbbu dee dëggan ki ñaan baat it ñaan gim ñaan baat taxut du tax ñu saña a téye alalam déedéet ku nekk la nga moom rek yaa koy jëlal ama laaj bi ci mbokk mbokk mi teg na ndax jigéen bu ñaanee baat daa war a fay déedéet léegi boo nekkoo fay ma mu ne yow fay ma sama ndaw gi nga yóbbu bànneexu gi nga bànneexu ñoon fay ma ko noo koy faye déedéet jigéen sañ naa ñaan baat te du fay dara boo déggee ñu ne jigéen ju ñuy fay mooy jigéen joo xam ne daa dugg ci ëpp sëy ba mu neex ko mu jekki-jekki daal ne man sama jëkkër awma benn problème defoo ma dara man daal maa bëgg a dem rek kon kooku moom jëkkër yi sañ na ko fayeeku ndax kooku amul benn problème amaa nag bu fekkee sëy bi daa neexutu am ay jafe-jafe wala mu gis ci jëkkër ji loo xam ne baaxut ni ki jëkkër ji day màndi wala nangam kooku sañ naa ñaan baat du fay dara nekku ne jigéen heure bu ñaanee baat rek dañaa ko fayal déedéet jigéen yiñ sañ a fay mooy jigéen ji labat waxul dara mu ne bëgg na dugg ba ci biir jëkkër ji sonn ciital def li def ba noppi mu xëy daal ne ko man daal defoo ma dara amu benn problème man daal maa bëgg a dem rek su boobaa jëkkër ji sañ na ko alal kooku la ñuy wax waaye waxuñ nag ku ñaan baat rek ñu ko la déedéet wallahu taala alamu sawaaba tara sax lay ngor nag ta rafet mooy yu mel noonu nga bàyyi mu jàll rek incha allahu rabbi loola moo ci gën nag sa jëkkër yi sañ na ko ah, foofu nag bari na góor ñu bare bari góor ñu ñaaw jikko góor ñu ñaaw jikko lool ñoo xam ñu mën a xoroñoñal jigéen la moo tax yonent bi ne woon góor goo gis mu mel noonu di téye jigéen di ko xoroñoñal naan kay du ma la may sabaat da nga xam maay kan nee na foo ko fekk rek man ngaa waat ne góor gu bon a ngi noonu sallallahu alayhi wa wa alihi laaj ba ca tegee mbokk mi laaj imaam joo xam ne da doon jiite takkusaan te fekk julli wutoon tisbaar ndax julli ga wér na waaw julli ga da wér na julli ga moom incha allahu bu fekkee ñu nekk ci ginnaaw ñoom xamuñ ca dara waaye moom imam ja nag ak julleem moom du baax ak julleem moom du baax lu dul nag ne dakoo fàtte bu fekkee da koo fàtte su boobaa kon ak julleem baax na waaye nag taamu nañu mu dem bu fayee tisbaar ba noppi nag moo baamuwaat moo baamuwaat takkusaan nga waaye amaa nag imaam bu fekkee ne mi ngi jiite takkusaan ba mu julli ba sëlmal da ko wax ne ah mbooloo mi kat man fàtte naa ne julliwuma tisbaar loolu da yàqalu dara mbooloo mi même moom sax julleem wér na waaye dañuy taamu rek bu fayee tisbaar ba noppi mu baam baamuwaat takkusaan ci wallahu alam laaj bi ci tegee mbokk mi laaj koo xam ne dafa génne asakay xaalis ci misaal mu nekk cinquante mille ci misaal mu dem jënd ko saako ceeb dem di ko sedd séddale ndax asaka ja wér na déedéet asaka ja wérut asaka ja wérut wax dëgg yàlla ba nga ko génnee xaalis lu la ko tey joxe xaalis ak ku la jënd loo ceeb ku la wax nga dem jënd ceeb asaka ji du sa du sa alal asaka ji yàlla moo la ko génne la ba nga ko génnee ba noppi loolu tey nga dem joxe joxe gaa yi danga dangaa gën a xam way ñàkk ñi da nga leen gën a xam fooy yaay ceeb bu bëggee ceeb kon loo ci demee jënd ceeb loolu ñaaree lu ci ëpp njóobeen yu nay yi ñoo koy def am na ñoo xam ne seenu nay àgg na ci mënuñoo yëkkati seen xol may lañu yëkkati jimmi xaalis di ko joxe waaye wax dëgg yàlla kay coono ba mu ko ci daj yow dañu la génneel asakay xaalis ma ko way ñàkk ñi génne nga mu nekk cinquante mille te nekk nga jox ko vingt mille ñoom bu ñu bëggee jënd ceeb xam nañ fa ceeb di jaay ak ku la wax ñoom ceeb lañ soxla boo yëkkatee ceeb jox leen di fekk ñoom amoon amoon nañu bor bu ñu bëgg a fay wala dañoo bëgg a fay la seen doom jàng wala ñoom courant moo leen lëjal doo leen rey ya koy jox leen xaalis rek bu ñu bëggee fay courant fay courant bu ñu bëggee def nàngam kon daal li ñuy wax ne Cheikh Ibra Fall moo ko waxoon ne ndigal dafa mel ne caay bi bu ëppee du tijji bu yéesee du tijji du tijji génneel asaka génneel joxal way ñàkk ñi rek kenn jëndaloo wala ceeb kenn defu la séddaloo wa kenn defu la wala dara génneel jox leen ñoom xam nañ fay jaay ceeb moo tax borom xam-xam yi ëpp nee nañu asaka kenn du ko weccaxndiku ku war a génne asakay xaalis nga dem di génne ceeb ak génne ay dugub wala génne nangam asaka ja du du wér donte nag am na yeneen borom xam-xam yu ñoo xam ne nee ñu asaka yi na ko d'accord ci xiima waaye la gën a wér nag mooy jëfe ndigal rek boo liggéey bu la yàlla waxee neel génne naa xaalis joxe naa waaye boo àggee ci yàlla mu ne ana sa asaka nga ne koo génne jox jënd ceeb mu ne ku ko jënd loo koy tontu amoo tontu mooy kon jëfewoo ndigal hmm. wallahu aalam alhamdulilah mu dee laaj bi ci tegee mbokk mi laaj dafa dégg am ñu wax ne benn néew buñ doon rob yàlla na ko yàlla yërëm ñu ne képp koo xam ne bii ci guddi da ngaa joteeg sa soxna incha allah rabbi bul jottali koo néew bi maanaam daal bul jël néew bi di ko dugal ci bàmmeel bi mooy laaj loolu lu ko waral loolu day xawma lu ko waral waaye du diine kon ña ko wax ñoom lañu ñu war a laaj luñ ci jublu ndax joteeg sa soxna ci guddi moom ak jaamu yàlla la sax nekku du bàkkaar du sobe du lu salte du dara suñ borom moo ko santaane maye ko ñu def ko kon nag ka wax ne ku joteeg soxnaam guddi bu mbokk ci ñi jàpp ne bi kooka la ñuy laaj li nga wax foo ko teg li wér daal mooy li mu wax moom du waxi yàlla du waxi yonante bi sallallahu alayhi léegi nag moom la ñu war a laaj lislaam daal moom tërëwul loola ñëwalu ko sibu ko dara nekku ci kaka wax nag la ñu xam ba xam xëy na moom moo xam lam ci jublu wala boo xëy na moom waxi boppam la wala bëgg-bëgg boppam la waaye bu dee ci lislaam daal amut benn gravité amut dara lu ci nekk incha allah kuy jotee sa soxna jaamu yàlla gu rëy gu bokk ci jaamu yàlla yi ci la bokk incha allah rawatina bu fekkee nag defee ko koy ne ko sunna jàngale muy yéene uh, am ci njaboot gu baax ak fas yéene faj sa bànneex ngir doo ko wuti feneen foo xam ne dëgganu la wallahu alamu laaj bi tege mbokk mi laaj di liggéeyee jënd suuf ak jaay suuf ndax daraa ngi ci déedéet wa ahalla allahu al bay'a bu dee daal jaay ak jënd daal lépp looy jaay lañuy xool mooy ndax li ngay jaay dagan na wala bu fekkee dagan na te yaa koy defee nu baax di jënd di jaayaat incha allah loola dañ lay ñaanal rek yàlla def ci barke dara nekku ci laaj bi ci tegee mbokk mi laaj koo xam ne imaam da koo raw ba imaam sëlmalee mu jóg di fay am keneen ku ñëw roy ci moom waaw ka ñëw di roy ci moom ak jullem du baax ndax kooka day roy ci maamum day roy ci maamum kon ki imaam xas ba raw kenn mënta roy ci moom kon kooku bu keneen ñëwee na julli jullik boppam bu fekkee dafa ñëw nag defe ne kooku daa tàmbali woon jullik boppam ba tax mu roy ci moom bu julli ga jeexee na ko ko wax ne ko ah, man mii de dañ maa woon ma jóg di fay kon yow mënoo roy ci man incha allahu rabbi demal nga julliwaat wala sax ba mu ñëwee di roy ci moom rek bu dee ko xam la ba mu ñëwee di roy ci moom da ko war a fitasu ne ko déedéet ne ko déedéet demal nga julli sa jullik bopp waxala kulli xaal daal kooku moom matul imaam booy jàng sart imaam dañ lay wax ne la te bum nekk koo xam ne imaam da koo rawoon muy fay bu ko rek julli ga du wér wallahu a'lamu ko nag wuute nag ku ñu wuutal bu fekkoon nag dañ koo wuutal nag kon kooku daa soppi ko imaam moo tax ñu mën a roy ci moom. laaj bi ci tege mbokk mi laaj kuy julli ba mu yàgg mu daal di daanu waaw kooku day day jóg rek incha allah rabbi continuer ak julleem dara nekku ci yi nga xam ne dogalu yàlla la nga xam ne daa gaar ki ngir dogalu yàlla yooya deesu ko jàppee doomu aadama incha allah rabbi yi nga xam ne yàlla moo ko bindee doomu jekki-jekki daanu wala jekki-jekki rek di sëqat sëqat su metti wala yu ko nuru wala baatam takk muy xaddami ko wala yu ko nuru yooyu deesu ci topp kenn ndax dogalu yàlla rek la wallahu alamu laaj bi ci tegee mbokk mi laaj imaam joo xam ne day yàq imaam day dañoo bëgg mu doon koo xam ne làmmiñam day set mu mën a jàng alquran ju wér rawatina faati xaja kon bu dee ca fatiha ja da cay yàq te yàq ga nekkut làmmiñ wu taq kooka insha allahu rabbi nga xam ne ñàkk a mën a jàng alxuraan rek la kooka moom matul imaam bu fekkee nag làmmiñ wa daa taq moom dara nekku ci waaye kon nañ jiital ku làmmiñam set moo gën waaye nag du tee julli ga dana wér ku rey ci moom dana wér incha allah bu fekkee ak ñàkk xam rek la te xëy na amul keneen ku mel ne moom kon kooka buñ ko def imaam ndax dañuy sart ci imaam lu bon bon dana mën a jàng faatiha bu wér boo xam ne day indi sedde yi ak yëpp loola bu amul rek kon kooka duñ bëgg mu mën a jiite maanaam du mën a jiiteeti kon daal bu fekkoon ne yàqee moom ci moom dong la ni moom noonu la mën a jàngee alxuraan kon ñu jéggal ko ko bu fekkee da tamit dëgg la sax làmmiñam tëqut du noonu la mën a jàng alxuraan waaye moom xëy na am jàngam daal moo dëgërut kon kooka na ku ko jiite bu amul ku ko jiite nag na jàng alxuraan nam ma ne ba tey mën nañ ko ko jéggal amaa nag moom ci booba ñu di ko tànn di ko def imam mën mënta jàng alquran ju wér kooka moom julli ka du wér wallahu aalamu kon kooka moom du dagan ñuy roy ci moom ginnaaw bu ñu xamee ni matul imam loolu nag bari na ci jàkka yi lool ñoo xam ne wax dëgg boo leen digloo seen fatiha dana xaw a doy waar lool xanaa bu fekkoon ne dañuy yónni koo xam ne daal mooy toppatoo jàkka yi di déglu moom dana bari imaam yu ñu folli lool ndax dañuy gis ne alquran ju wér sax mënuñu koo jàng yal na nu yàlla yërëm laaj bi ci tegee mbokk mi laaj ndax dagan na jaay loo xam ne dañ koo sib waaw jaay loo xam dañ koo sib bi nga waxee dañ koo sib rek ci la àtte bi ñëw mooy loola dañ koo sib lépp lu xaraam xaraam naa jaay lépp lu ñu sib xaraam si eh, sib nañu nga di ko jaay sib nañu nga di ko jaay ci sartum nag bu fekkee ka koy jënd du ca def loo xam ne loola dañ koo araamal su boobaa kon day xaraam su boobaa kon day xaram bu fekkee da cay def loo xam ne dañ koo sib kon sib naa si sib nañ ko bu fekkee nag yëf yi dañ koo sib moom mii dañ koo siba lekk te ki nga koy jaay moom lekk ko kon su ba dagan na ndax gis nga lu mel ne fas kenn du ko lekk waaye gis na dagan naa jaay daa bokk ci yi ñuy jaay ak jëndante loolu moom dagan na kon daal bu fekkee ne loolu dañ ciy jëfandiku jëfandiku goo xam ne dañ koo sib nga di ko jox koo xam ne loola la te da ciy def lu ñu sib kon àtte ba nekk ci ak sib waaye bu fekkee nag incha allahu rabbi loola ci boppam dañ ne lii dañ koo xaraamala lekk yàppam ni mbaam la waaye nag dañ koy jënd ak a jaay ngir ñu di ko war loo su boobaa dagan na dara néew ci ndax war ga ci am solo mooy jëfandikoo ga wal xayla wal bigaala wal xamira li tarkabuha laa mu illa kon mi ngi noonu kon nag bu lépp loo xam ne daal dañoo araamal ku ko lekk kon di ko jaay ngir ñu di ko lekk xaraam na loo xam ne dagan na ñu lekk ko nga di ko jaay ngir ñu di ko lekk dagan na loo xam ne dafa dañ koo siba lekk nga di ko jaay ngir ñu lekk ko dañ koo dañ koo sib wallahu alam bismillah mu dee laaju mbokk mi ci tege muy laaj ndax lislaam jàngale na dara ci boo géntee rawate na bu fekkee danga gént lu ñàng wala bokk nga gént loo xam ne lu neex la lislaam moom bàyyiwul dara maa farat na fil kitaabi min shay alxuraan nee na ci téere bi dara yonent bi sallallahu alayhi wa sallam amut benn tomb boo xam ne ci dundu nit ki la lu dul leeral na ko ba mu leer nañ ñi borom xam-xam it macha allah jaar fi eh, tabarkàlla ñoom it leeralaat lu bare bare bari ci li yonent bi leeraloon ba noppi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na bu fekkee ne danga ngaa gént te li nga gént baaxut. ni nga gént ay rabi àll de la dàq wala nga gént yu ñàng daal yoo xam ne baaxut boo yeewoo da ngay taflit sa mbakum càmmooñ ñetti taflit sa mbakum càmmooñ daa di wax allahuma inni audu bika min charri ma raaytu wala lu mel nga jàng falaxe wala naa si xeetu muslaay yi man nga ne suñ borom yàlla na ma musal ci lu bon lii ma gis ci sama nelaw yi yonent bi salaa salaam nee na lii de bu ko defee te bu fekkee danga nga war a tëddaat nag ni da ngaa ci guddi gi bu fekkee war a tëddaat na nga na nga changé côté bi nga tëddee woon nee na lii ku ko def loolu mu gént du ko lor kon nag jërut sonn jërut sonn ñu naan la danga ngaa a joxe nangam ak yonent bi nee na du la lor boo defee lii mu la wax tafli sa mbagum ci mooñ ñetti taflit nga ne aoudu billahi min ashaytan rajim wala allahuma inni aoudu bika min charri ma raaytu wala nga jàng falaxi falaxi naasi nee na du lor yonent bi sallallahu alayhi wasallam maa yantiqu anil hawa moom du ay caaxaan nee na du la lor kon nag jëratul di sonn naan da ngay sarax ay laax da ngay sarax nag sarax nag baax na moom waaye boo ko defee rek du bu ko nettali kenn boo noppee bu ko nettali kenn kon li nit ñi def dem di woote naan damaa gént gaynde dama ndax nanga loolu bi tere na ko nee na ko nettali kenn dee nag danga ngaa loo xam ne lu neex la loo xam ne xéewal la nee na loola day na ñaan yàlla mu dëggal loola ba noppi bul ko nettali kudut koo xam ne woor na la ni lu baax rek la la bëggal lu baax rek la la yéene loolu nag léeg-léeg nga gis ko lay ree wax dëgg yàlla nga defe na lu baax la la yéene waaye ay boo xamoon la nekk ci xol ba kon nag koo xam ne wóor na la kii daal lu baax rek la la yéene boo amoon teraanga yi àdduna àdduna ci biiram moom yéene na la ko du la ci iñaane dara man nga koo nettali da ko démb day wax dëgg yàlla dama gént yóbbu sama ñaari waajur yépp màkka mayit ma dem màkka wala ma gis ki yonante bi gis ay xéewal daal incha allah gis nga <laughs> yonante bi ku yéeme la boo jàngee surtout Yuusuf yonante yàlla Yuusuf ba mu géntee xéewal gént jant beeg weer weeg ay biddiw eh, fukki biddiw ak benn inni raaytu ahada asara kawkaban wa shamsa wal qamara raaytuhum li saajidin ñu di ko sujjootal baayam dane ko bul nettali sa gént gi de sa doomi baay yii boo leen ko nettalee rek da nga am loola metti bu leen ko nettali <laughs> ndax dañ lay fexeel fa yekk yi doo làkk kay daa gis nga kon ñi nga xam ne tabaarkalla dañ laa yéene wut lu baax wala daal am na boo amee xéewal daal mën na am ñu fiiraa ngay jàpp leen ndax doomi bàyyi yuusufa ñu baax lañ sax ndaxam am na sax ñu ne ay yonant lañu waaye nag fiiraange moo moo leen jàpp nga moo tax yonant bi gis nga lim foofu ni mu dëppook alxuraan léppam alxuraan la dañ ko laaj saytu suñu suñu yaay aïsatu mu ne yonante bi daal ci gàttal daal mooy alxuraan rek lépp lu ngeen gis alxuraan di ko digle xamal ne loolu la melokaana woon loo alxuraan di ŋàññ xamal ne sori na ko wallahu aalamu laaj bi ci tege mbokk mi laaj am na ñoo xam ne bu ñuy lekk dañuy tudd turu saxaaba bu tedd bi ñu tudde Xaalid ibnul Walid ah, loolu de dëgg yàlla wóote nag la yonante bi jàngale nit ñi nag dañoo am seen yëfi bopp am am lu am lu lislaam jàngale nit ñi léegi lekk seen yëfi bopp la ñuy gën a fonk sax li lislaam jàngale yonent bi sallallahu alayhi wasallam de moom lam jàngale woon ci teggi ni lekk mooy tudd yàlla <laughs> non moo gën a wóor nag Xaalid ibnu Walid kat ku baax la waaye day wax dëgg doomu aadama rek mbindeef la de tudd gi nga tudd de man na laa bañ a jariñ dara te bu fekkee lor a ngi ci ñam bi lor yi mën na laa bañ a euh, tudd ga nga tudd du tee lor man laa dal kon nag la gën a wóor mooy nga tudd yàlla mi bind Xaalid ibnu Walid li muy tedd tedd loolu mooy njàngale mi yonante bi sallallahu alayhi wa kon li yonante bi jàngale ci lekk ak naan wala ngay waaja def dara mooy tudd yàlla tudd yàlla alxuraan sax gis nga wàllu ren deg lu mën a doon mu ne waskurus mallahi alayhi na ngeen tudd tur yàlla mu jiitu kon nag yonante bi sallallahu alayhi wa jàngale mooy kuy lekk daal jëru ngay wut ndox di ci wis jëru ngay def nangam yooyu yëpp ñoo ko wutal suñ bopp nañ ko bàyyi ta dem ci li ñu yonante bi wutal yaakaar naa moo gën mooy ne bismillah daal di lekk dara du la mën a tee lor Xaalid ibnu mii ñuy wax nee ñu xisa bi nag bari na ay wax ndax wér na wala wérut waaye daal nee na ba mu demee ca ay noonam nooni lislaam di xeex ak ñoom ñu daal di yebal kenn ci ñoom wala boog moom moo leen wax ne leen man ngeen yebal ki dàqa defar ak tooke ci yéen bu defaree tooke bu ñëwee bu bu ma ko joxee bu ko defee ci ndox ma naan ko suñ diine ji am nañ loo xam ne boo ko tuddee boo ko naanee du la wàññi dara nee ñu bañ defaree tooke ji mu ñëw ne bismillah daal koy naan ñu ñuy taxaw di xool seeni montar na xanaa bu amee cinq secondes dana war a dee cinq secondes weesu ñu ne ba du mënta àgg dix dix ñu ne mënta àgg quinze yaakaar naa mujj nañ wàññi ay fan wala ay at te mujj ko rey loolu nag xisa la boo xam ne wax jàng ca am na ñu ne wér na am na ñu waala kulli xaal bismillahi rahmaani rahiim moom mën na lu weesu loolu kon li yàlla jàngal yonent bi sax jàngal ñu ko mooy tudd yàlla yàlla mi nga xam ne moo mën a aare nga tudd ko waaye di tudd keneen nag moo xam saxaaba la ak lu muy tedd tedd loolu nag saxaaba li ñu jàngal mooy ñu roy ko rek incha allah rabbi wallahu aalamu bu dee laaj bi ci mbokk mi laaj ne dafa dégg ñu ne euh, xadir ñene ñene xadir ñene ñene xudar euh, ku xam aw dàkkantalam xam euh, aw turam dëggantaan xam turu baayam euh, lu ci mbokk mi wax mu ne ko xam dana dugg àjjana waaw loolu wax jooju day donte gisuñu ko ci xaddis yeeg yu mel noonu waaye am na téere xam-xam yu ko indi ci misaal booy jàng téereb ashalul masalik sara bi tuddu euh, siraaju salik moom indi na ko xadir moom dañoo werante ndax ab yonant la wala déet wal xulfu fil fil xadri shahirun mun jala la wax am laa waxii la bal wala am na ñu ne waliyu la ne ñu alaaji Maalik nag dana bu ñu ko laaji neel waaju baax la rek mën ko wax nga dëgg de moo xam yonant la wala du moom waaju baax la rek ndax boo ne yonant la fekk ca dëgg-dëgg du kon dafa mel ne tuumaal nga yàlla am nga ko ne yàlla ko yónni kon weddi nga yonant bu yàlla yónni moo tax kaam lu xaw a metti la <laughs> lu xaw a metti la lool moo tax borom euh, borom siraaju saali bi mu koy leeral ba agsi ci mu ne wala yanbaxi li ahadin an yaqtaa bi nafyin aw ithbatin kenn wuru cee dogu kon daal xajar daal seede nañ ne nit ku baax la rek bu dee yonant la yonant nit ku baax la bu dut moom nit ku baax la moom leer na nàññe yàlla rek moo xam ba mu koy saraa la nettali ne sëriñ bu euh, xaala asoobi mu ne asaab yi day nee na dégg na ci lenn ci nitu yàlla yi lenn ci nitu yàlla yi dégg na la ñu wax ne képp koo xam ne xam na turam xam turu baayam xam dàkkantalam xam laqabam dana dugg àjjana moom xadir soo dee laq laqab bi nag kon xëy na mooy xadir ndax tuddul noona bu dee aw turam dañ cee werante am na ñu ne mi ngi tudd balyaa balyaa la tudd am na ñu ne ahmad la tudd ahmad bu dee euh, turu baayam nag mooy malkaan malkaan la tudd bu dee aw dàkkantalam nag ñu ngi koy dàkkantale abula abbas abul abaas daal lañ koy lañ koy dàkkantale loolu nag euh, aswaawi nee na moo ko dégg ci lenn ci al aarifiina yi mooy ñi xam yàlla ah wax dëgg yàlla kon wax jooju mënees na ko bàyyi xel di ko jéem a xam rek ndax ñi xam yàlla yàlla dana leen di xamal wallahu alamu bu dee laaj bi ci tegee mbokk mi laaj na dafa am ay commerçant yoo xam ne dañoo nekk ci yenn dëkk yi ni ki ay Chine wala Dubaay wala yu mel noonu boo ñëwee di jënd si ay bagages dañ lay dalal buñ la dalalee marchandises si nga war a jënd yëpp dañuy dem ca marché ba xool benn commerçant bu fekkee ne ci misaal saak daa war a jar ñaari téeméer ñoom ñu yokk njëg gi ne ko bu ñëwee jaay ko ko ñaar téeméer ak juróom fukk di ko def noonu di ko def noonu ba mat su ko defee bu ñëwee nag ànd ak sénégalais biy jënd si bagage yóbbu ko ci commerçant bi mu jaay ko loola ci prix ba mu booba bu noppee nag la ca tegu woon ñu demaat ca commerçant ba jël loola ci misaal ne ko saak bii 2000 rek lay jar waaye maa indi sama client ne la nga jaay ko ko 2500 kon 500 bi nga jox ma ko. loola day jëf ju xaraam la muy benn wor la muy ñaar liggéey la boo xam ne lislaam gërëmu ko yépp daje na ci ndax sa mbokkum sénégalais wax dëgg ñëw xamut dëkk bi wóolu la nga ñëw di ko teg dil di lekk alalam ci ay caaxaan parce que loolu nga def boo ko difutoon kon njëg gi mën naa gën a wàcc kon léeg-léeg commerçant bi ñëw jënd ñaar fukki million te fekk ñaar fukki million yi ñaari million yépp waa ji moo ko lekk mënoon naa ñàkk bu ñu ko leeraloon dëgg dëgg piri yi kon ñaari million mënoon na ko bañ perte kon nag jëfandikoo ku xamut di ko utiliser di lekk xaalisam loola dëgganut rawatina wor li gën a bon mooy di kumpaloog doomu aadama di lekk alali jàmbur te wax na dëgg ñu bare bare ci ñuy liggéey rawatina ñi nekk Chine wala eh, Dubaay nga xam ne xam marché bi boo ñëwee ñoo lay jiital dem di la yóbbu tabarkala léeg lee sax ñu yët la jaaykat boo xam ne ca dëgg-dëgg am na beneen jaaykat bu ko gën a baax la waaye intérêt daa nekk ci kii wala boog am na beneen jaaykat bu ko gën a di jaay original waaye moom ci kii la bëgg kii la kompalool kon loolu loolu dëgganut nit ku nekk da ngay xool loo xam ne bu doon yow la est ce que da bëgg ñu def la ko dëgg yàlla yow miy def loola boo sañoon boo nekkoon commerçant di jënd boo sañoon boo ñëwee da nga dajeeg nit wax dëgg mu yóbbu la ci wan la prix yi dëggantaan ñu jaay la lañ la war a jaay léegi nag terewuñu ñooñu ñu am bénéfice de kenn terewu leen ko waaye nag nañ sellal seen liggéey leeral ko nañ dalal Sénégalais bu ñëwee nañ leen wax lu leer nañ man kat mën naa laa yóbbu ci marché bi yóbbu la kuy jaay pour ay kii yu baax nangam nangam waaye nag man damay liggéey lii sama liggéey la soo noppee danga ma fay nangam leen la su ko defee waa ji ne kii day business bul ko ko nëbb parce que bu yeewoo sax moom dana xam ne loolu defoo ko ngir yàlla dem rek yóbbu ko nii rek mu jaay jeex na déedéet am nañu goree di ñoo xam ne mën nañoo dem ci waaji de waaji jaay ko ba noppi nga xam ne am am na ci commerçant bi bénéfice ab téeméer bu mu war a lekk te du tee bu ñëwaatee Sénégal ne ko ah, jox ma dara kat li ma la jàppale am nañu goree noonu am na ñoo xam ne xaalis lépp la leen jaral kon loolu liggéey bu salte la kuy business di liggéey kenn terewul a liggéey liggéeyal xamalal commerçant bi ne ko ah, man nag damay liggéey dinaa la yóbbu nga jënd dinaa la defal nànkam waaye soo noppee danga ma jox nànkam mu leer naññi jeex na na leer naññi wala boog nga ne ko njëg yi ngay jënd kat man man am naa ko mën naa la ko wutal waaye ci prix nangam laa la koy wutale ba mu d'accord bu d'accordee jeex na yow demal jëndi loola bénéfice boo ci am jeex na waaye waa na xam rek li xew waaye di ko wan ko dama laa dimbali nangam commerçant bi moo gën a baax la moo gën a naa fekk sa intérêt nekk lu war a jaay lu war a fukk nga yokk aw ñaar dërëm nga ne ko jaayee ko ko nangam mu nekk sa mbokkum jullit wala sax nga ne sa mbokkum taalibi laa waaye ma dama lay dimbali moom nangam nangam fekk dara loola baaxut kuy business na leer nañ ñi xam ne da ngay business dara nekku ci wallahu taala aalam bismillah bu laaj ne ndegem sëñ Muntaxa dafa yokk can laaj la bu xoromu wax dëgg yàlla sëñ Muntaxa yokkut can sëriñ bi ndegem sëñ Muntaxa daa yokku can koo xam ne nag moom yëgul ne sëñ Muntaxa yokk na can ni mbokk mi laaj rek la ñuy waxee ba tax moom lañ daa lam daa joxe rek la joxe ndax sëy booba dana wér tontil mooy waaw sëy booba dana weer waaye bala maa ñëw ci loolu ma ñëwal xamal leen ne la sëñ Muntaxa yokkut can wàññiwut can <clears throat> sëñ Muntaxa du moom mooy yokk can du moom mooy wàññi can da sëñ Muntaxa dalay leeral sa diine rek sëñ Muntaxa day kilifa ak diine kilifa diine daa bokk ci li ko war mooy waxtu jot muy saytu di xool di xool yëf yi di ko organiser di gën a leeral nit ñi. bañ na ko ba wàllu can yi daa yónni ay borom xam-xam daa woo ay borom xam-xam ba ñëw ñu ne ko can gii kat nangam la ñu digle woon sëñ Fallou nangam sëñ Touba nangam mu ne nañ xool nangam bii ba xam ñaata lay toll ci jamono ji ñu dem këlkin xool or xool nangam ñëw ne ko nangam lay toll mu doo ko joxe déclaration boobu waaye du jëmm ci suñ mu taxaa ci boobu mooy joxe naan can gi lii la wala nang déedéet moom li yàlla digle yonent bi digle rek lay leeral ñaare bi li mat a leeral foofu mooy da dégg ñu bari ñaan can gi léegi euh, tabaarakàlla wenn siimi la déedéet dañoo wax ne gën gaa niiw maanaam bu gàttee ba gàtt daal incha allah namat wenn siimil amma bu ko ëppee nag loolu mu wàññiwul dara te sax loolu aw tur la rek waaye nit mënta takk Sénégal gii ci ni ñuy aada woon nit mënta takk takk soxna di ko jox wenn kese ndax may gu njëkk ga rek dana ëpp lool foop te may gu njëkk ga can la ñu bari xamuñu ko nag attention may gu njëkk ga can la ci can gi la bokk lépp looy joxe te ba nga koy joxe ngir alali sëy gi la dañu la ko laaj ngir alali sëy loola can lañ koy tuddee kon li ñuy teewal ci jàkka ji loola day présente nii rek waaye daanaka ba bañ la laajee may gu njëkk ba nga ko joxe mënoon nañoo fas rek nga dem sa yoon ndax loola can la te ëpp na can kon Sénégal gi ngir nga joxe wenn six mille kese nga xam ne joxoo ndaw si dara joxoo ko may gu njëkk joxoo ko ay jumtukaay joxoo ko dara lu du vingt-cinq mille rek ñu may la li ko ñu koy def sax néew na bu fekkee am na bari wut kon nag la ñuy teewale ci jàkka ji euh, wax dëgg bu doon aw mille francs wala mu eb téeméer sax te waa ji laaj nañ ko may gu njëkk ba mu joxe sept cent mille wala mu joxe trois cent mille wala deux cent mille loola ca dugg na ca can ga bu ñu joxe wutoon dara sax loola taxaw na taxaw waaye nag comme li ñuy teewal di ko di dañ koy jëmbal rek di teewal incha allah loola lañ wax ne lii gi nga xam ne mooy àq yàlla nga xam ne mënta ñàkk biñ ko xaymaa day toll ak wenn six waaye ñu bàyyi xel ne loolu yoonu al imaamu Malik la waaye li ëpp ci boroom xam-xam yi lu bari nee nañ can amul ab lim lépp loo yëkk di jox ko ndaw si mu d'accord la mu d'accord a nangu la nangu loola ngir sëyal la rek loola daga na te loolu nag wax dëgg wér na ci xadis yonante bi sallallahu alayhi moo tax ku joxe woon lu gën a néew wenn six mille it benn sëy ba dana wér ngir laaj nañ ko may ku njëkk mu joxe te loolu ëpp na wenn six quinze mille dong la joxe wala boog dix mille dong la joxe wala boog ñaar téeméer dong la joxe du tee sëy ba wér ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam laaj na waa ji loo mën a joxe can mu ne ko awma dara mu ne ko teega wër mu wër ba sonn amu amul dara ne ñu may na sëy ci weñ gu ñuul maanaam jaaro boo xam ne weñ weñ rek la ne daanaka amul amul amul dara bal ne maye na sax sëy ci ne kon comme amoo dara loo ko jox can da nga koy jàngal dara ci alxuraan loo mokkal ba mokkal ko loola nekk can ka moo tax borom xam-xam ne wax dëgg yàlla bu ñu sukkandikoo ci xaddis yorante bi ak lim jëf lépp loo jox jigéen te mu nangul la caa sëyal nangu ko rek loola dana jo doy ak can bu dee yoon al imam na nag wax ne mënta gën a yées rubu dinaar loolu la sëñ Muntaxa doon leeral noonu ina bi mu gisee ak borom xam-xam yi ak yu mel noonu waaye nekkul ne sëñ Muntaxa day wax ne lii la diina ji def wala nangam déedéet moom day leeral rek lislaam jàngale te nit ñi xaw koo fàtte wallahu taala alamu sawaaba laaj bi ci tege mbokk mi laaj ne daa am ñu wax ne nit ku shahid ku shahid mooy ku ñu rey ci yoonu yàlla shahid nag am na ay xaaj shahid ba gën a leer mooy kuy xare kuy xeex ci yoonu yàlla ba ñu faat ko waaye am na yeneen nit lu mën a shahide ni ki nekk ci alxuraan ba faatu wala yu mel noonu wala muy défendre alalam ba faatu wala yu ko nuru bari na ay xeet ni ko borom xam-xam yi leerale waaye laaj bi mooy daa am ñax xam ne ku shahid daal far force day dem àjjana am na ñu ne déedéet nangam waaw baatu far force kenn du ko wax ci kanamu yàlla kenn du ko forcer. waa wa annahu subhanahu laa yajibu alayhi shay'un bal li fadlin yahabu suñ borom dara waru ko ba nga koy forcé naa ko far force nangam tey du teggin sax nag du teggin nga naan suñ borom su borom kii kii far force da koy defal nangam déedéet ndax nit mën naa shahid nii nga di ko gis maanaam daal mën naa dugg ci xare bi di xeex ba ñu rey ko su ko dee looy wax da nga la te mën naa ba muy bu fekkee ba muy faat deewaalut ak ngëm nag diggante bi nit kii faatoo lu ne xaj na fi lu ne xaj na ci. kon yàlla dara waru ko bañ naan ko far force loolu du ay teggin bokk na ci ñàkk teggin ci kanamu suñ borom nga naan yàlla da kenn du ko forcer ndax boo nee far mooy day mel léegi yàlla ñàkk na pexe mënta def lu dul lii te loolu amut yàlla lépp lu mu def bal li fadlin yahabu maanaam yahabu day maye day joxe day tàbbal àjjana li fadlin ngir ak mbaaxam rek de kenn du ko forcer de kon nag neel rek ah nettali nañ ne képp ku shahid day incha allah kooku moom dana texe niñ la ko nettalee nettalee ko noonu rek. incha allah waaye nag bu nekk rek naan far force ak far nangam yàlla amul kenn ku koy forcer ci dara kon nettali nañ ci eh, xadis ci xisa yi ci xare yi benn waaye buñ gis muy xeex ñu naan diw de nim jàmbar ba ñu rey ko ñu naan diw de ndeysaan bu faatoo rek diw de xam naa ma nga nangam yonent bi sallallahu alayhi ne kook ngeen wax ma nga sawara te moo mi ngi te moo ne nit ñi xamuñu koon bu bàyyi woon nit ñi dañaan naan sahid la farfos ma nga àjjana comme ni ko moo ko mi gannaaw bañ xoolee mbir yi ni mu demee ndekete moom sax yàlla taxutoon muy xeex leneen taxoon muy xeex gis nga kon mbir yi dafa nëbbutu kon yàlla kenn doox ak moom naan ko far force kon nag yàlla yàlla nañu defal lépp rek ci ak mbaaxam. laaj bi tege mbokk mi laaj waaw jumaa moom nu mu war a mel ba tax ñu ne dëkk bi kat léegi mën nañu am nañ jumaa war nañoo julli ak juma waaw mooy dañuy xool dëkk ba seeni dëkkuwaay nu mu mel. bu ñu mënee am jumaa ju mel noonu rek jumaa jooja loolu mooy charte bu fekkee dëkk ba ñoom ñëpp daal ko am sàkket bu baax daal wax dëgg da nga am naa kër gu baax kon su boobaa bu ñu buñ buñ mënee tabax jumaay sàkket ju mel ni ni kër yi mel nga ne kër gu ñu nawloo nam mel bu ñu mënee tabax jumaa ju mel noonu rek ay juma war na leen bu ñu amee limba bu ñu amee mbooro jamaatun tataxarra bihimul xariya kon tëkkul fenn bu fekkee dëkk ba kat kirti kirti nding wala kirinti nding nuñ ko mën a waxee moo fa am wala sàkketu xat wala sàkketu gittax kon nañ tabax jumaa ju mel noona yonent bi sallallahu alayhi jumaa jëm <laughs> jumaa jëm tabaxoon ñim njëkk tabax ñu ci daa julli noonu la meloon di booba booy tabax tàndarma ngay jël dagg xob ya ci kaw dégg nga daa tooyal ban di noonu lañ ko tabaxe woon amutoon sax lu ko tiim ndeysaan amutoon minbar amutoon dara noonu lañ ci daa jullee ndax loolu moo amoon kër yi noonu la meloon bu fekkee kër ya tabax la foo nañ tabax jumaa bu ñu amee jumaa ju mel ne foo terrasse rek baax na bu fekkee nag Euh, suñu euh, kii xew nii léegi kon nañ xool incha allahu rabbi jumaa ju baax joo xam ne daal dana méngoo danañ fa mën a jaamu yàlla waaye nekkul nag faaw day rafet wala dañ fay tabax ay kar ay karo wala dañ fay def nang muy dégg nekk jumaa déedéet nu mu mel rek te dëppoog ñooña nañ amee ak nañ dëkk rek incha allahu rabbi loola jumaa la dañ ko war a tabax dañoo war a defar jumaa ju mel noona incha allah te tàmbale julli wallahu taala alamu sawaaba laaj bi ci tege mbokk mi laaj ne day gis léeg-léeg liir bu juddoo buñ koo ngéntee ba noppi bu amee ay fan wala boog buy doo ko juddoo dañuy ay bant bale teg ko ci wetam wala ay këriñ wala ay paaka naan daf koy aar wala loolu moom lu bon la lu xaaraam la te yëfi ceddo la yëfi ceddo la daa am baat boo xam ne yéefare dañ ko daan wax léegi ñu bare bari ci ñun dañ koy wax mooy lii yëfi maam yi la <laughs> yëfi maam yi bu baaxul dañ koy sànni ci àll maam yi li may faral di wax ne dafa mel ne daa am ñaari maam sëñ Tuubaa daa bokkul ci maam yi bàyyi xaar yi ma jaxate ka la a bokkut alaaji maali da cee bokkut lu tax bu ñuy wax maam du ñu roy foofa du ñu wax ne lii maam yi sëñ Tuubaa moo ko daa def parce que xam nañ ne maam yi moom diine dong la def ñu beddi leen nee maam yi nga xam ne dañ daan def ay njabar ak ay xuraafaat nag jël ay banti bale di jël ay paaka di ko tegal nit ñi ñu ne léegi ñu loolu la ñuy jël boo waxee ñu naa ah, may maam yee ko fi defoon déedéet kon loola kàddu gi yéefari ñoo daa wax lu mel noonu wajat naa aba ana wajat naa aba ana la abidin dañoo fekkoon suñ maam yi ñuy jaamu xaram ñu di ko jaamu loolu wax la hmm? inna wajadna abaana ala umma wa inna ala atharihim muhtadun ak muqtadun yonent yi ñëw di leen waar ni leen bàyyi leen lii ñu ne duñ ko bàyyi ndax maam yee ko fi defoon lii lañ fekk maam yi doon ko def bu ta bu soobee yàlla ñun ci la ñuy roy ci la ñuy gindiku loolu baaxut kon wut ay bant bale di ko tegalub liir naan da koy aar loolu yeb yàlla la parce que liir bi fu mu nekkoon avant muy ñëw koo ko waran aar booba ana maam ana banti bale yi ana seetu yi yaayam ëmb kenn yëgu ku ñu waxoon ne yaayam ëmb na sax doo ko yëg booba yàlla rek moo ko xamoon yàlla di ko sàmm bañ def ci ak ruux mu nekk yàlla di ko jox muy lekk di ko jox muy naan di ko jox muy noyyi booba ana bant bale ya ko doon aar mu nekk ba am doom juddu ne léng nag ñu doog wut ay bant bale fu ne ñu jël fa ak takkun jël ak wuñ ku xonq tegal ko lii day tax duñ ko defal nangam day tax duñ ko defal nangam ku la ko wax maa anzalallahu biha min sultaan loola yàlla la ko wax yonent bee la ko wax ban boroom xam moo la wax duñ wax mukk nañ ci jàng alxuraan ngir mu barke day déedéet nañ wut ay bant bale bant bale daa man dara bant bale bale da koy jënd di ci bale muy ruus di ruus ba jeex tàkk ñu mujj sànne ko ca sën ba ana njariñam këriñ bi matt la woon dañ koo toggee ba mu ñuul kukk <laughs> mu doog mel noonu mu mel tar boo ko boo kon noonu di ci toggee léegi mu nekkul dóom du amati benn njariñ kon yooyu yëfi yëfi ceddo la faaw nag ba dee Sénégal li ma wax rek senegal dañoo nekkoon ci yëfi mooy xeetu gëm-gëm yii lañ gëmoon ba lislaam ñoom bi lislaam ñëwee nag lislaam lim leen wax mooy bàyyi leen lii tëjal lii moo gën waaye ñoom dañ ne déedéet dëgg la danañ jàpp lislaam waaye nag li fi maay bàyyi faaw duñ ko bàyyi nag moom moo fi indi lii ba léegi ay ay banti baleeg ay nangam ak liir bi dañ koy tegal paakaak ndax moo koy aarak moo koy def nangam ak nag <laughs> yàlla léegi ñi gëmul yàlla ñoom seen liir yi kon ñi gëmul yàlla ñu ngi tubaab yi nga xam ne ñoom civilisation rek lañ gëm ñeen seen liir yi ku koy aar seen ñu am nga xam ñoom gëmuñ yooyu yëpp waxuma la loolu waaye gëmuñ sax lislaam léegi seen liir yi ku koy aar xanaa yàlla kon nag ab jullit bu ñu andilee diine andi la lu gën lépp looy defati tari ci alquran waxal bismillah tari ci jeex na bu fekkee nag yow gëmoo loolu la nga ay bant bale la muy tekk mooy ngëm ko oyof yàlla nañu ci yàlla musal bismillah mu deen laaj bi ci tegee mbokk mi leerlu góor goo xam ne dafa fase jigéen ba noppi nag daal mel ne ku fasewaale ay doomam ne ay doomu jigéen daal man daal sama yoon nekkatut ci yéen yéen daal fu ngeen xam daal jëm leen lu ngeen lu leen neex def leen yal yàlla musal ci <laughs> góor ñu mel noonu day bari eh, li ñuy wax ne yaradi ko li muy bon ci mag la ci mag la yéese yal ci yàlla musal waxalaa kulli mbokk mi ab laaja mooy jigéen ñooñu bu buñ matee sëyi ku leen di maye a ah, xanaa seeni mbokk mooy matee sëyi tey seen bàyyi danañ ko laaj rek bu waxee la mu ne man sama yoon nekku ci nangam nangam ñu xool seeni mbokk bu ñu amee mag yu góor mag yu góor a leen bu ñu amul mag yu góor ñu dem seeni baay yu ndaw incha allahu bu ñu daal ñu xool ña gën a jege ci seen wàllu geño geño la ñuy xool nag ci wàllu maye bu fekkoon ne amut wala ñoom ñëpp kenn nangu ci ñu dem ca imam ja incha allah ku leen may rek ku leen mën a may rek te nekk jullit incha allahu rabbi kooka baax na waaye nag deesul déglooti bàyyi ja nag comme moom nee na la ko lislaam joxoon dàq na ko nee na gedd na ko te bàyyi jooje nag bu demee yowmal xiyam balaa jàll faaw ñu taxawal ko laaj ko suñ borom laaj ko ne ko la ma la dénkoon sa njaboot gi lu tax nga abandonné bàyyi dem sa yoon wallahu a'lam laaj bi tege mbokk mi laaj imaam joo xam ne dëgg la mën naa jàng faatiha waaye ca saar ya nag da koy yàq ki fii laylatil mu ne fii laylatul waaw loolu moom du tee julli ga wér loolu mënut a yàq julli ga ndax bam ne eh, ba ba faatiha ja jeexee lu mu bu bu ci amee benn aaya bu baax rek incha allah kon léegi wér na lam ca tegaat nag di gën a guddal muy dem ci misaal bu ne inna anzalnaahu fii laylatil qadri nga ne fii laylatul la wax yàq na ko waaye teg na ca wa ma wa ma adraka ma laylatul qadri xam nga loolu aaya la rawatina nag mu teg ca laylatul qadri xayrum min alfi shahr nga ne yooyu yëpp baax na lool mun a yàq dara ci julli ga ànd ak loolu lépp nag bu ñu amee ku ko gën daal ku dul yàq loolu mu gën ndax alxuraan moom dee su ko yàq wallahu aalam soxna si ab laajam nee na dañoo wax ne damaa xamul nag ñen ñoo wax dañoo wax ne boo gisee deret baax ñeenti fan rek da war a dem sangu ji soxna si loolu de wérut ci diine moom diine moom waxut loolu xuma nag ñeneen ñu ko wax waaye loolu moom diine waxu ko diine daal néewul jigéen ju gis deret baax ñeenti fan rek demal sangu ji déedéet xëy na dama te li ma gën a yaakaar nag mooy xay na borom xam-xam ya ko wax da ngaa desee dégg lañ wax rek wala dañ laa leeral nga desee dégg lañ la leeral wala ba kala leeral daa xamut waaye loolu moom incha allah jàngale wuñ ko ci diine ne boo amee ñeenti fan rek demal sa yoon demal sangu ji déedéet. voilà ku moom li mu bëgg wax nee na kon ndax bu amee deret deret yi baax ñeenti fan te dugut këram ñëw sañ naa jaxasoog moom waaw kon demee la ñaari laaj la bu dee laaj bu njëkk bi moom ma tënkal la ko rek deret baax li gën ci yéen jigéen ñi. mooy deret yi baax ngeen di dem ci borom xam-xam ngeen toog mu toog ngeen di ko laaj mu leen di tontu def musaafaha ndax yenn masala yi day xuut xóot goo xam ne bu fekkee ki ngay wax la jëngut mën nga ko wax léegi mu fàttewaat ko kon la gën mooy wàllu deret yi baax ak yu mel noonu jigéen ji dem ci borom xam-xam nekk ba saan incha allahu rabbi mu muur na mu war a muuroo wala nekk ba guddi dem ca euh, borom xam-xam ya toog lii laaj ko bu ne bu dogee heure nangam nu def. bu defee nangam bu ñëwee ñaari fan def nangam mu di la ton ba mu leer sa bopp ba keroog mun la leer na nga ne ko waaw loolu moo ci gën waaye ci gàttal li ma la mën a tënk rek bu dee di ëpp ci jigéen ñi nga xam ne moo la ñu maanaam koo xam ne baaxoo na ko gis mooy koo xam ne daal jànq la gis na ko gisati ko ay yoon wala ab jeeg la gis na mu ngi gis deret baax tàmm na koo gis kooka dañ naan dal sa aada maanaam li nga ko baaxoo gis ñaata la comme yow baax nga ne ñeenti fan ci misaal su boobaa ñeenti fan yooyu ngay jàpp ne mooy sa aada mooy diir bu normal mooy sa diir mooy li normal li jaadoo nga war koo gis dara baax léegi nag ñaara mën am weer wi ñëw mu ëpp wala mu yées boo ne maa waaw bu wenn weer ñëwee ba ma ko gisee ñetti fan rek mu dog set wicc nu may def man la nga dem sangu ci jeex na bul xaar ñeenti fan yi comme daal ñett la am dog na leer na naññe demal nga sangu ci rawatina nag bu fekkee ne euh, gis nga ndox mu weex moom nga xam ne ñaare ci mujjug dereti baax lay génn wala boog sa sa kanam sa sawukaay fen di gisoo ca dara luy noroog deret léegi nag bu fekkee dafa ëpp gis nga benn fan weeru ñëw na nga gis benn fan ñaar ñett ñeent ñeent la daa jeex mais am na ñeent mais nga xëy soo mu koon ne ñëw nooy def subaa dañ laan teg ci benn fan xool ba xam dana dog boo ci tegee benn fan mu nekk juróom bu dogee alhamdulilah nga dem sangu ji te bu la sa borom kër soxlaa baax na bu fekkee te nga ci benn fan nag muy juróom dugut ñu la teg ci beneen fan xool ba xam muy juróom benn bu dogee baax na bu dugut ñu la teg ci beneen fan ba xam muy juróom-ñaar beneen fan boobee nga ca teg nag mu ko juróom-ñaareel bu dogee baax na bu dugutit faaw da ngay dem sangu ji moom da ngay dem sangu ji te xam ne loolu wàllu tawat la deret jooju di génn nekkatul dereti baax ndax li ñu ko yoonu al imam Malik jàngalee su boobaa moom dere jooju di génn bu ko sa borom kër seexluwut dëgg yàlla dere jooju nag dere ju seexlu la waaye bu ko seexluwut incha allah kenn terewul nga joteeg moom tey du tee julli du la tee bu dee koor du la tee woor ndax ñeenti fan yii moo nekkoon sa baax léegi teg nga ci benn fan dugut nga teg ci ñaar dugut nga teg ci ñett bu duggee bu dugut lépp dangay dem da dem sangu ji te boo bëggee joteeg sa borom mën ngaa joteeg moom amaa nag ñeenti fan yee jeex rek nga ne suma sama borom kër ñëw déedéet kooku moom du tax nga sañ a joteeg moom ndax deret jooju deret yi baax lañ koy jàppe te deret yi baax borom kër di joteeg soxna ci deret baax benn du du lu silvisé wax dëgg xel mu la waru koo nangu ñaare bi dafa xaraam da nga ciy jëlee bàkkar yi ñaar ñëpp ñetteel bi mooy da nga ciy jëlee ay jàngoro loolu ay jàngaro yu bon ci wàllu sëy ci jàngaro yuy dellu ci wàllu awra yooyu dañ koy Euh, da cee da cee am deret jooju deret deret ju bon la deret joo xam daanaka posen la moo raw posen sax kon nag góor sa soxna di gis dereti baax ngay joteeg moom premièrement mooy loola ak xayadi la mooy du ak silwiise du ak set ñaaral ba mooy bàkkaar la bu ko ndaw si nangoo tamit ñoo bokk bàkkaar ba fa'tasilu nisaa fil mahiid buñ gisee dereti baax day leen leen sori ci bañ a joteeg ñoom wut nag sori ci jëmm ñetteel ba mooy mën nga caa jële ay jàngoro yu bon yuy wàllaate ci wàllu sëy lañ ci yàlla musal wallahu taala alamu sawaaba bisimilah mu dee laaj bi ci tegee mbokk mi laaj seytaane daal la bëgg a xam daal jëmmam daal nu mu mel ak lu ci aju waa awalan mooy laaj bi gisuñu ci jàpp nañu amuluñu benn njariñ moo tax yàlla xibaaruñu ko yonente bi sallallahu alayhi wasallam xibaaruñu ko suñ borom moom lu am njariñ rek la ñuy wax kon nag dañuy dañuy lijjanti loon saytaane nu mu mel nu mu jën jëmm la amee est-ce que daa dañ koy bind ci kër yi wala est dafa nekk <laughs> loolu wax dëgg yàlla bokkut ci li ñu amal njariñ euh, te nag min xusni islaamil mar'i tarkuhu ma la yaanihi yonente bi bokk na ci li rafetal diine nit ki mooy lépp loo xam ne amulu ko njariñ nag mu bàyyi ko ndax fi ne buñ ñu waxoon ne aw sakar la léegi lu mu ñuy jariñ wala bu ñu waxoon seytaane këriñ la wala seytaane suuf la ban njariñ lañ ci am kon nag li ñu amal njariñ mooy fexe ba duñ topp seytaane te loolu yàlla wax nañu ko yàlla wax nañu ay pexeem wax nañu ne mooy seenub noon inna sheytaana lakum aduwun fattaxisuhu aduwan innama yad'u xisbahu li yakunu min ashaabi sair loolu moom leer na kon yàlla dañoo waxal li ñu amal njariñ mooy kii daal seenum noon la lépp loo xam ne da leen cee ñoddi ne leen wóor na da leen a ñoddi jëm sawara bu leen ko topp loolu daal leer na leeral nañu ay pakkam ay jaar-jaaram lim leen jax-jaxalee wax nañu ne tamit leen muslu ci man ci ay pexeem lii moo ñuy jariñ amaa nag moom jëm moom ci boppam nu mel lool amul ñu njariñ wax dëgg yàlla nag yàlla lam ñu leeral lal mooy ci sawara lañ ko bind nag mënunoo wax dëgg yàlla di gëstu nag loo xam ne yàlla waxu na ko yonante bi waxuñu ko te amuluñu benn njariñ la ñu amal njariñ daal mooy yàlla nañu yàlla musal ci moom rek te musal leen ci musal ci mbokk mi lañ musal ci ñëpp wallahu alamu bu laaj bi ci tege mbokk mi laaj am fo moo xam ne daanaka ay mooy yàlla yi kese ni ko mbokk mi laaja nga xam ne day tax nga faat waxtu julli day euh, jaxase góor ak jigéen day waral yu bari mooy laaj alal joy alal jay juddee ci fo mooma ban atte la ko lislaam di jox xanaa atteem foma rek te mooy foma daa xaraam lépp lu lislaam di atte buñ nee nangam dafa xaraam rek xamal ne lépp lu ca juddoo ñooyam àtte ci misaal bu nee jaay yàpp mbaam xuux daa araam kon alal ja ca juddoo day daal di xaraam bu nee jaay xar dagan na alal ji ca juddoo dagan na mu dee xar ma yaa ko moom bu ñee fo moo xam ne dalay moyloo yàlla kon jëmmi fo day xaram lu ca juddoo rek xaraam na jeex na mi ngi noonu mënta jaamu yàlla mënul dara bu fekkee nag Euh, nit ki dafa liggéey alal ju xaraam dem may ko nit nga xam ne mu da ko ko may borom xam-xam am na ñu ne dagan na am na ñu dëgganut mooy dañ ne alal ji ki ko liggéey sax baaxut ci moom kon nag mënta baax ci keneen am ñu ne déedéet kenn ku nekk ni nga amee alal rek lañuy xool comme moom da ko amee ci da amee ci fo moo xam ne dafa xaraam kon moom ni mu liggéey alal ji xaraam na waaye kiñ ko may nag moom dañ ko may te kuñ may nag incha allah lañ la may dagan na. comme xaalis lañ ko may te jëmmi xaalis moom du dagan gi ak xaraam gi du nekk ci jëmmi xaalis xam nga mbaam xuux moom jëmmi mbaam xuux moo dëgganut ku ko doon may lim lay may moo dëgganut ci boppam waaye xaalis moom xam nga dagan na léegi nag am maa nu ko waaji fàggoo loolu dañ naan waaji rek la ñuy topp loola waa ni nga amee alal daal alal ko liggéey ba am ko dañ la ko may dañ la cee fay bor ndax fi mu toll nii nit ki bu ñëwoon di jënd ci yow mënoo nga may alal ji nga <laughs> ni nga ko amee dagan na mooy dangaa jaay sa alal ñu jox la moo tax ñu ne daal bu ñu la mayee dagan na wallahu aalamu laaj bi ci tege mbokk mi laaj politiciens yi nga xam ne dañuy jël ay alal di ci def ay billet màkk di yóbbu nit ñi ñu aji luy àtte bi ah àtte bi de moom nekk politicien taxut a doon nit ku baaxut man ngaa nekk nit politicien nekk nit ku baax man ngaa nekk politicien liggéey sa alal ba mu leew la nga da ci jël ay billet di joxe man ngaa nekk politicien tamit jël ci xaalisu réew mi organiser ko organisation bu jaar yoon ne at mu jot danañ yëkkati ci misaal téeméeri million jox ci ay jullit ñu aji màkk kon bu fekkee loola def nañ ko nañ ko war a def organiser nañ ko te maanu nañ ca loolu lépp lu baax la lu dagan la bu fekkee nag li mbokk mi bëgg a wax te mooy li li bari li ñuy gis ci réew mi politicien boo xam ne xam nañ ne amutoon dara muy tibb alali askan wi di ci joxe ay billets loolu mu àtte bi ñun ñëpp xam nañ ko daanaka tontu naa ko léegi wax naa ko léegi ci alal ju baaxul naka noonu bu fekkee tamit ku ñu jiital ci am réew wala ñu dénk la ay poste nga jël alal ji di ci propagande di jox ñu la neex ak ngir di ko def sa campagne wala ñu lay tagg wala ngir leneen nga xam ne yéemalee woo ci nekkoon na ko organiser di ko defal réew mi nga xam ne réew ci yem subaa ba tey atte bi ñëpp xam nañ ko mooy ko loola lu xaraam la te sëñ Tuubaa wax na ci Masaalikul Jinaan ne bari na koo xam ne buy aji màkka day dem ci nit adduna yi fu ne mu yuñu yunnu yunnu fa ngir ñu di ko jox waaye sëñ Tuubaa nee na kooka de bu jógee màkk ay bàkkaar yu diis dong la fay jële du fa jële benn tuyaaba sëñ Tuubaa nag nee na waman yusharikum wala wala ah, nu mu ko waxee sax ah, wala lahu suxbatu faasixin wala xultatuhu li fi izzihim yakun sharikuhum gadan fi dullihim min aqbaxi l ba nim jeexee nee na koo xam ne faasix la mooy koo ne day jalgati ba mu fés day mooy yàlla ba mu fés bu ñee faasix ci lislaam mooy lu yàlla santaane nit lànk ne du ko def tam leer nàññee wala lu yàllay teere nit di ko def ba mu fës leer nàññee kooka ku koy def ab faasix nga mu ne nag ñi nga xam ne dañoo yor lu mel ne teraanga fii ci àdduna jël alal jàmbur ji këpp kees yi ñu fal la rek nga jël alal ji di def noonu la neex képp ku ñëw di ànd ak yow ngir loolee nuru teraanga nee na boo liggéey duma yuñ duma kooka dana ca bokk duma yuñ duma kooka dana ca bokk euh, kon nag mi ngi noonu kon nag bu fekkee ne kii dem dem di laaji alal ñi di ko jox ndaxam sax bu fekkoon da ngaa toog rek benn politicien ñëw yëkkati bee jox la kooku moom doo lijjanti naa ko foo ko jëlee ak nangam déedéet da ngay jàpp rek yàlla xam fa mu ko jëlee digganteem ak yàlla la waaye yow moom dagan na ci yow waaye amaa nag bu fekkee nit ñi dañoo xam ne diw mi fal nañ ko poste muy tibb alal di tasaara nu mu ko neexee nga dem di jël ci loola te xam nga alal ja fa mu jógee su boobaa loola moom ni sëñ Tuubaa waxee rek yàlla na ci yàlla musal wallahu aalam laaj bi ci tege mbokk mi laaj buy ñaanal ñaari waajuram léeg-léeg day jax-jaxi bu jiitalee yaayam sikk saak ah est-ce que man sama yaay laa waroon jiital bu jiitalee baayam a ah, est-ce sama baay laa waroon jiital lu tee ma jiital muy laaj nu muy def ni ngay def mooy da ngay roy yonante bi sallallahu alayhi wasallam gis nga ab jullit boo bëggee sa xel def la la yàlla wax lu la yàlla wax dane wa ma aataakum rasulu fa xuduuhu xool leen lu leen yonante bi jox ngeen jël lu ñu problème yi ñu am yépp mooy dañuy defal suñ bopp fi ne mbokk mi de laaj moo ko defal boppam yaay jekk-jekk rek di tandaatu di xool ba xam damaa war a jiital kii moo tax doo am dara lu leer da ngaa waroon a xool da ngaa waroon laaj borom xam ne ko waaw lislaam nu ma jàngale ma jiital samay waajur su ko dee kooka ne la yonent bi de lii la wax su ko dee sa xel dal jeex na li feeg yaa ngi teg sa tànk ci ndigal ci lu yonent bi jàngale doo jeex jeexi waaye boo nekkee ci topp ci euh, lii la ni ñuy wax riirandoo ak maa ko wutal bopp maa ko defal sama bopp maa ko su boobaa ci ay erreur rek ngay nekk te sa xel du dal ndax mën ngaa def ba soo nekkat li nga def dara baaxu ci yàlla na ci yàlla musal yonent bi ku mu jiital ci ñaari waajur yaay la jiital ba waa ji ñëwee laaj ko ne ko waa man sama baay ak sama yaay moom ku ci ëpp àq ku ma war a jiital mu ne ko sa yaay sa yaay sa yaay sa baay doog a ñëw mooy sa yaay jiitu na ko lu bari mu ëpp àq ci yow fuuf am na geneen ñaan goo xam ne ne nettali nañ Sëriñ Tuubaa da koo joxe woon sa ñaari waajur ba muy waxit dana da ngay jiital sa yaay ndax mu ëpp àq kon nag booy ñaan incha allahu rabbi jiitalal sa waajur wu jigéen teg sa waajur wu góor doog cee teg mbokk yi la gën a jege gannaaw ba nag nga maasale ci mbokki jullit ñëpp waaw boo ci jiitalee yonante bi yonante bi sallallahu alayhi wasallam moom lépp moom moo ci war a jiitu ndax ma annabiyu annabiyu awla bil muminina min anfusihim yonante bi moo seen jëmm sax yonante bi moo ko jiitu yonante bi moo leen war a gënal lépp waxuma la seen waajur waaye seen jëmm ak seen ndey ak seen baay yëpp wala boog sunuy ndey ak sunuy baay ak lépp ñu mën a doon yonante bi moo leen jiitu kon moo war a jiitu moo tax booy ñaan bokk na ci lii eh, li lay dimbale ñaan nga nangu mooy jiitalal salaatu ala nabi rek jiital allahuma salli ak ak njabootam yonent bañ yonente bañ ko laajee nu ñuy jullee ci yow da ne da julli ci man ak sama njaboot allahuma salli ala muhammad wa ali muhammad nga doo dugal sax ñaan bu la neexee allahuma salli ala sayidina muhammadin wa baax na nga dooga nag dugal say ñaan bu ñaan nga jeexee nga tëje ko ko su ko defee suñu borom moom bu ñaan gi bu ci yonent bi jiitu mujj ci rek ndeysaan ñi ngi rafet njort ne dana ko rus yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kon noonu ngay def su ko defee la nga def bu xasaw ba tegu ci njàngalam yonent bi rek lépp day baax waaye bu ko juyoo ngay def sa xalaatu bopp rek te lépp looy defati bul jekki-jekki def laajal lu ci diine wax ba noppi ndax laqad kaana lakum fi rasulillahi na xasana yonent baa ngi nii mooy seen royukaay lu ngeen am problème rek dem leen ca moom laaj bi ci tege mbokk mi laaj ne moom witar day nekk ba yeewu ay 5 heures doo ko julli safaak witar mooy laaj noonu moo gën wala teel koo jullee gën teel ko julli moo gën te mooy ndigal li tamit boo jullee gee ba sëlmal julli la safaa julli witar dem tëdd boo yeewoo nag bu la neexee naafila goo bëgg naafila téerewuñ la ko waaye daal comme yow naafila woo defoo dara déedéet witar boo jullitee gee rek julli ko ndax biddanti am na fi lu ne am na fi ngay laajaat naan waa bi ma biddanti nu ma loolu lépp li gën a gaaw boo jullee gee ba sëlmal julli sa safa julli witar tëdd boo yeewoo fekk fajar jotagut loo bëgg a naafil nga naafil boo yeewoo fekk fajar jot alhamdulilah nga julli ñaar rakkee fajar ak suba rek wallahu taala alamu sawaaba bismillah laaj bi ci tege mbokk mi leerlu ne boo amee soxna mu am doom nga xam ne mi ngi mi ngi gis dereti wasin ndax da ngaa war a génn nee bi wala <laughs> da ngaa war a sori foofu wala noo war a def waaw ok sama laaj mooy boo génne nee bi foo jëm ak ak ak looy defi ak lu tax maanaam lu tax ngay génn nee mbokk mi bu fekkoon dafay nekk may laaja ne ko dinaa ko laaj ne ko waaw léegi maanaam lu tax ngay génn bi lu tax lu tax ngay génn bi. mbaaru da seexlu sa soxna moo tax nga bëgg a génn nee bi mbaaru da koo seexlu boo ko seexloo lu tax nga seexlu ko mooy deret ji génne ci moom mu ne deret ji génn day moo la indil kado boo xam ne kado gënu ko kado boo xam ne am na ñuy fay ay million ngir bëgg ko am te yàlla mayu leen ko de yow yàlla may na la ko deret ji génn kado boobu de moo ko indaale yàlla moo la may doom doom ji mi ngi ko jaale sa soxna soosu amu na ko juróom-ñeenti moom sa soxna soosu léeg doom ji di ko wéq léeg muy wàccu léeg-léeg lu mu lekk wàccu ko tayoo yaa ngi am sa jàmm de tayoo yaa ko teg yaa ngi xëy suba di liggéey di wàcc di lekk moom di muy lekk yu saf muy lekk yu kii ndax gémmiñam daa lewet yow dara jotu la yow da ngaa bànneexu dong man ak yow ak ñun ñëpp dañoo bànneexu sunu soxna yàlla fay ñu ci tuyaaba ca bànneexu ga waaye yàlla defal ñu ci beneen bonus boo xam ne kenn mënu koo amal sa bopp muy jékki-jékki rek yàlla may la doom jaare ko ci soxna soosu mu indil la doom nga xam am na yonant yoo xam dañoo sukk di ñaan yàlla naa ko may ñu doom yonant <laughs> yonant ndeysaan yàlla dimbale ñu may ñu doom joo xam ne bu ñu fi jógee sax mu mën ñoo doon yarisu ni wa yarisu min ali yaqub wa ja'alhu rabbi radiya di ñaan sonn ci lool yow doo ab yonant de mën naa am sax bu dee ko mel ni man la di mooy yàlla tuuxi doona gu ne nga def ko lii yàlla sant doo ko def lii la yàlla tere ci nga dëkk loola téewul yàlla may la doom de ci ak mbaaxam soxna sa sonn sa lool xanaa du soxna saa am doom malgré santoo ko jéem a wuti ndawal jox ko mu suppa di lekk bu dee njóobeen dana ci kontaan ngir bénéfice bu rëy boobu mu la andil lu dul nga di ko seexlu naan damaa war a génn nee bi lool mooy fay gi loolu mooy loolu mooy loolu mooy teraanga loolu mooy fay gu rafet te mënoon na caa faatu moom soxna soosu tax nga bëgg a génn bi ngir seexlu ko mënoon na caa faatu de bakkanam ngir lan ngir yow la a may kado kado bi la yàlla jox jaare ko ci moom moo la ko andil te mënoon na caa waaye nañ yërëm jigéen ñi te wormaal leen nag te jox leen wormaal luñ leen de yenn xalaat yi am na yoo xam boo ko xalaatee ci xel sax dëgg day ñaaw lool ah da ngay génn nee ndax lan ñu ci bari seexlu ko rek seexlu ko dañ koo seexlu waa day gis deret deret ji jeexagut deret ji ku ko jox ci yow la jógee cadeau bi mu la indil moo waral deret ji boo ëmbutoon du gis mën naa bañ a gis deret jooju wala bu ko dee gis dereti baax lay doon te du yàgg yow boo génnee néew balaa yàgg nga ñëwaat yitte woo waat woowaat soxna si <laughs> yitte woowaat soxna si noonu la mel mais mel na njóobeen bi nga xam ne daa gis ñuy fees xar mi ndeysaan génn mbaq gi mu naan mbàq gi de ni ma ko seexloo waaye buñ ko ca defaralee dara lu buñ ko ca defaree ab supp nangam léegi nga gis mu ñëwaat tiimaan mbaq gi <laughs> yàlla yàlla yërëm jóobeen yi kon nañ nañ jigéen ñi wax dëgg dese nañ leen a warmaal waxuma da waaye xeetu xalaatiin rek xalaatiin da ngay dégg wax waxi waxi waxi waxi waxi waxi june ñu koy wax jëmale ko ci jigéen ñi koo xam ne benn moo la jur tey jii lii ko dal doomu aadama buy ñëw adduna lool lool nday nday jëla indi loolu moo koy lal am na ñu bari ñoo xam ne liñ mën mënta supporter ba tax ñuy génn nee bi mooy liir bi daa bari jooy ndeysaan waaw sa doom ji daa mën a jooy boo koy xalaat sa yaram day daw wax dëgg yàlla wax dëgg ñàkk ngor gi ak ñàkk a njukkal jigéen ji ñàkk njukkal jigéen ji léeg-léeg nga gis góor gëdd gëdd gëdd jigéen danga ngaa ta nax sa doom ci ah moom moo ko moom te bu màggee nag tabaarkalla ngay sol dara di xoggaliku naan moo ne sama doom la bu demee ba am fierté bu doom ja jànge njàng mu rëy wala mu nekk boroom xam-xam nangam nangam ñu laay ndeysaan diw de waxtaan moom waxtaan fee wala diw de ni mu amee xam-xam wala diw de ni mu defee nangam nga ne sama dooma la di daal di muñ te bu te bu yëgul kat yaa ne woon ah, ndaw si nax la sa doom ji nax sa doom ji te bu fekkee ne doom ja li li sénégalais di wax tekki Sénégal bu ñu nee tekki rek mooy am na xaalis ñoom loolu rek lañ jublu ñoom même doom ja na baax na mokkal alxuraan bu amul xaalis rek ñoom pour ñoom tekkiwut <laughs> ci seen waxin waaye bu defee li ñuy wax tekki ci bu tekki bu tekkiwut ci misaal doom ja mel neneen wala mu wax dëgg yàlla amul dara wala boog muy sax def loo xam ne jaaduwut lislaam da ko tere tabarakàlla ñu raakee moomale ndaw ji ndaw si sa doom ci doomam ji waaw moom da jur moom day xamoon naan du fi jur lu baax te moom doom juru ko de moom dañ koo dénk rek góor ga daa joteeg mu am ndox mu ndox ma ca góor ga la bàyyi ko am doom comme doom ji baaxul ñu bàyyi jigéen ci doomam ci waaw doomam ji moom bu baaxee nag góor ñëpp bëgg koo xëccoo waaw moo sama mooy sama taaw <laughs> mooy sama taaw waaw ndeysaan mooy sama taaw gërëm naa ko ndax la ndax xaalis bi. kon euh, sëriñ bi sa soxna bu amee doom dañoo bëgg si dañoo bëgg boo ko doon dimbale benn nga dimbale ko fukk dañoo bëgg loo ko mën a jëndal ci ndawal loo xam day dëgër ndax yaram bi dafa dafa doye di dafa sonn lool daa jóge ci liggéey bu metti te léeg jëkkër tooy donc jëkkër liggéey ba tooy rek soxna si day sonn jëndal ko nang di ci sonn soxna sos moo moo gën a tooy moo gën a moo gën a tooy xépp la def sax daa sonn loolu yax yi yaram bi yëpp di metti kon loo ko mën a dimbalee heure boo wàccee jëndal ko ndawal nangam tey de maa jënd naa la bopp xar tey de nangam nangam tey ma laa jëndal nangam est ce su ma jëndal nangam du baax léera doom ji bu naxee ba sonn nga ne ko teg maa jox ma essayé ba xam ta nga nelaw tuuti ndax sonn nga de wax dëgg loolu mooy yërmande waaye daw génn nee bi bàyyi ko problème yëpp waaw daw génn nee bi naan man damaa mënta téye liir su ma ko téye sama yaram day daw <laughs> Eh, yal nañu yàlla yal na yàlla yërëm jigéen ñi dëgg yàlla war nañ leen a gën a bàyyi xel sama sama bopp laa ci jiital nag kon loolu lañuy ñuy xaar ci góor taxawaay boobu nga dem di ko dimbali waaye xalaatuñ ci yow nga naan da ngay génnum néeg bi dëgg la am na ci baati olof mag ñi daanañ wax naan ku sa soxna dugub néeg nga génnum néeg loolu lañ ci jublu mooy lan mooy ku sa soxna am doom mooy nga génn dem wuti wuti loo ko terale maanaam yow tëlatoo toog boo amee ngénte mu wóor na la ne surtout Sénégal ni ñuy ngénte nii mu wóor ne bis bii bu dellu see nit ñi dañu fa dajaloo nga war leen a jox lekk war leen jox naan yow moom doo talatee nekk ci néeg donc da génn maanaam da ngay génn dem wuti dem lijjanti ci gaaw lijjanti ci ay saagoy ceeb lijjanti ci diw boo ko mën jéem a leb jéem a dugg mbokk gi waxtaan jéem a loo ko xottil mooy da ngay génn nekk maanaam yow daal faaw nga génn dem wuti moom waaye néewuñ la nga génn ne bi dem di ko daw ah, déedéet waxuñu la lool ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndeysaan ku masaana a yërëm jigéen ak nekk ak moom ci jamono ji muy amee doom la même budul soxnaam sax da daan jigéen ju am doom sayyidatuna Fatimatu sunu sang bu tedd boobee yal na yàlla taas ci barkeem yonent bi sallallahu alayhi wa wax ne Fatima aw dogit rek ci man la ku ko merloo na la wóor na merloo nga ma lu ko neex neex na ma lu ko naqari naqari na ma mooy sangu jigéen yi àjjana yi moom sayyidatuna Fatima. mooy sangu jigéen yi jigéen aj jigéeni ajjana yi Fatima moomu bi mu amee doom mooy euh, alxasan ak alxuseynu dama cee téewlut kan la waaye defe naa la yor xam nga kooku maanaam doom la ci yonent bi salaa salaam waaye ñoo bokkoon génn kër gi yonent bi salaa salaam heure bu masaan jóg di julli ji rawatina julli fajar dégg ko muy jooy day jaar ci buntu nee bi ndeysaan nuyu leen na ngeen def yéen waa ahlul bayt nuyu leen waa ahlul bayt yéen ñi yàlla wax ne yàlla daal di jàng aaya ja innama yuridu llahu li yuthiba ankum rijsa ahlal bayt wa yutahhirukum tathira jàng aaya jooju bu masaan di jooy mu nag mu taxaw lu muy jooy laaj ay gëstu waaye bu dee góor yi léegi yii day ñu mel ne man daal bu dañaan man xale bu jooy dee bon loo sama xol beek nangam nangam xanaa du sa doom au muy bon loo sa xol jël ko nga nax ko moo gën a gaaw xool lu mu bëgg jëndal ko meew jëndal ko nàngam kon war na noo xoolaat point boobu bu baax a baax a baax a baax kon ku sa soxna am doom da daa soxla nga gën a nekk ak moom nelaw yee doom ja di yàq nangam léeg-léeg wax dëgg yàlla bu nax nax nax ba sonn bi lànk bañ a kii nga ne nelawut te bu xëyee suba kat war a bàcc ay laytaay war a def nangam yow da ngay xëy suba rek ñu defar ndéeg nga rek nga dem xëyaat doo yëg la xew ci kër gi kon nag wax dëgg léeg-léeg nga téye xale bi ne ko te tuuti ma kii ko tuuti gàddu tuuti waaye góor ñu mel ne man ñu bari rëy nañoo yor ab liir rëy nañoo nax lu bari bari bari bu leen xale bi sawee sax ñu tàmbalee di yuux sa doom ji saw na ma nangam nangam yonente bi sallallahu sam xale yi dañ ko daan tuur ndox lu bari te daw ko kaas day muuñ rek ñu jël ndox wis wallahu taala a'lamu sawaab wa ilayhi al-marji wal ma'ab hasa wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina muhammadin wa alihi at-tahirin at-tayyibin ajma'in yi li moo fi jotoona rot ci ay laaj lépp lu ci dëng ci man mii la gàtt xam-xam ak matadik doomu aadama lu ci jub nag ci suñ borom rekk la wa sallallahu ala muhammadin wa alihi ajmain